xam ne ku ko naan doo màngi yii ay géeji soow la soow moo xam ne du soppeeku amul awur amul dara naka noon itam géej yoo xam ne yii géeji lem la lem gu sell first quality moom lay doon ndax lemi àjjana amu fii dañ xam ne yëmb toggkat ya doon togg ca àjjana bañ leen jëlee exam yëmb moo fiir ba mu fiilee nag mu man lem ñu ne ko demal àdduna ngay moslewaale lem kon ñi nga xam ne ñoo paas am quality ñooñu seen togg ya kenn mënu boo xam ngir neexaay bu ëpp su boobaa nag mu ne danañ la jox nag ci li nga xam ne mooy ndoxi àjjana yooyu ak ndox moo xam ne anhaar min labanin lam yataxayyar taamu anhaarun min xamrin lasatin li saaribin anhaarun min asalin musaffa anhaarun min maa in xayri asin ñenenti ndox yooyu le moo ne àjjana soo demee nag lépp lañ lay jox boo si soxla rek mu daal di ñëw commande ba mooy subhanaka allahuma loo soxla rek da nga naan subhanaka loolu daal di teew nga daal di jëriñu su ko fee loolu nandal gi nga nandal mbokk wala bakkan boo xam ne mar na fii ci àddina nga sowe ko rek loolu dana tax bu ëllëgee yàlla nga booleel ak kër àjjana boole ci ñay naan ndox yu sell yooyu ak géej yu tedd yooyu yan ci yàlla boole gannaaw loolu itam ba tey tax mun loolu mu ne man kasa muminan ala uriyin kasahullahu min ulalil janna koo xam ne kii odd nga jaamab yàlla rawatina jullit buy jaamu yàlla xam na mbubbam ma daf koy sol ngir suturaal awra daf koy sol ngir di ca julli di ca jaamu yàlla loolu saahiri teraangay doomu aadama feeñ ci ko am ku ko gis naaw ko gannaaw loolu jaamoo ko yàlla di ca julli di ca topp yàlla yàlla nangu jaam nga loolu lépp mu ca def fee mu ngi sol mbubb mi rek am nga tiyaa booy loola muy def suñ ko fayee fayaale la ko te bu ëllëgee yàlla wadd la ci yére ajjana te yére ajjana yaa ngi koy solee biir ajjana ku dugg dootoo génn loolu lépp te dimbalante la kon daal lépp luñ soxla yàlla defal ñu ko mu ngi ci suñ biir suñ ko joxantee ngir yàlla yàlla fay suñ xol sedd kon loolu nekk loo xam ne li lu ama am solo mu wax ne man kaana fi haajati aqi kaana laahu fi haajati koo xam ne sa yitte mooy sol sa dàll di dox li nga xam ne mooy aajoon bi ndeefi doomu aadama yi mbokk la wayjur la njaboot la wala soxna la wala dëkkandoor la nga yëg aajoom sol sa dàll di ca dox rawatina ngay dox li sillati yi dox pour jokk ak bokk diggante bu xam ne jaxasoo am na nga jot sol sa dàll dox ko ba mu rafet duñ noonoo duñ tongoo duñ dogoo duñ bàyyi wante loolu nga taxaw ci ba loolu nga def ko muy liggéey bu rafet boobu tànk boo yëkkati danañ la bindal li nga xam ne leen njëkkatil daraja sa daraja di ko wee rek naka noonu nag tànk boo teg dañ leen sippil dindi say bàkkaar ba mu seet wecc yooyu nga xam ne yaa ngi koy dox ngir jokk ak bokk naka noonu <clears throat> jéego ngay dox ngir fàggu ji wër sa wu dagan woo dundee dundal ci sa njaboot xëy dem sa liggéeyukaay doxaan ñëw jéego yooyu nga xam ne caaxaanuloo doxuloo mboosoo yaa ngi dox ngir liggéey bi yàlla santaane ngay dox ngir am lu dagan loo dundee ak sa njaboot loolu jéego yooyu yëpp dañ la koy bindal ay tiyaaba dafa naa ki lay fay salari mënu laa fay loolu waaye yàlla moom lim la gàddul ci dem liggéey sa liggéeyukaay fonk sa waxtu def ko ci place ba lam soxla nga def ko doo tardel soxlaay nit ñi doo nekk koo xam ne dangay ngay doon yooyu yëpp su ko defee yàlla daf lay fay tiyaaba yu rëy rëy nga boole ko salari bi lay fay ak wërsëg bi la yàlla di wërsëgal ci diggante bi loolu yëpp yàlla nga koy defal jaamam ñi kon war nañoo bàyyi xel ci yàlla xam ne lépp lum ñu digal <coughs> suñ njëriñal bopp la waaye lépp lum ñu tere suñ lor la yàlla mënuñ koo jëriñ waaye mënuñ koo wàññi dara su defee loolu itam ñu bàyyi ko xel moo tax ne ku nekk di dox sa aajo mbokk yàlla dana teewoo say aajo di la ko fajal te doo sonn doo xelaat loolu yàlla moo ko gàddul jaam yàlla nag boo ko ñaanee mu may la moo la wax ne ñaan leen ma ma may yeferi ma suñoon laaj yonente bi saai sallam li ko dañuy laaj suñ borom yàlla mi ngay wax su fekkee ne jege nañu buñ ko ñaan di ko woo ñu oote ndànk ci suuf fekkee daf ñoo sori nag ñu yuuxu ca kaw ndax mu diñu dégg ndax ñu ñuy woote ñu bari ñu gisul dañ fa ne oote bee yeggut ci moom daf ko déggul yonente bi saai sallam alquran wax ko ne isa saalaka ibaadi hanni wala ka inni xaribun man maa leen ko jege seen bopp suñ ma laajee ne la yàlla suñ diggantee moom na am na distance naka la demee wala ne inni xaribun ujibu daawata daa isa daani kenn koy maa la gën jege sa bopp man nag may kii nangu ñaan ñaani ñaankat boo xam ne ba may woo bokkaale wu ma ak dara su boobaa lu mu ma ñaan ma may ko lu mu ma laaj ma jox ko lu ma tawat ma teggil ko ko dafee kon yàlla buur bu teddee noonu la kon ku ko am war ngaa sant yàlla fexe ba jubóobu moom te lim la digal yëpp sa njëriñ la dafay yent koo xam ne fexe nga ba say aajo yàlla di ko taxawee di ko doxal yaa ngi ko mën a fàggoo ci lan taxaw ci sa aajoy mbokk di ko dox di ko defar di ko toppatoo naka noonu wax ne man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahal allahu lahu tariq bi tariqan ila janna koo xam ne kii sol nga sa dal jëm yoon woo xam ne yaa ngay uti xam-xam bu boobaa jéego boo yëkkati yëkkati la daraja tànk boo teg ñu wàcceel la bàkkaar naka noonu ci dem bi ak ñëw yëpp jotaay ba nga toog di sàkku xam-xam ba araf boo jàng dañu sa bindal tiyaaba bindal la ki nga xam ne moo la koy jàngal nga fee yëpp jotaay ba dana la seete yomal fii day mos nga fee toog di sàkku xam-xam kon xam-xam mooy caabi bépp teraanga ci àddina ak àllaaxira kon jàng lu war la mu ne bu boobaa nag koo xam ne kii yaa ngi soogu yoon dem pour uti xam-xam saxalallahu lahu tariqan ilal janna yàlla na ko ubbil yooni ajjana mu jaar ca ndax xam-xam li muy digle mooy topp yàlla ragal yàlla def lu baax góorgóorlu ci jëriñ jaam ñi te bañ leen na lor lu baax li xam-xam di digle boo ci jaaree di ko def ci ngay amee ngërëmal yàlla soo amee ngërëmal yàlla ci ngay amee texe yàlla yërëm la jéggal la dëkkël la ajjana moo tax ma ne ku jaar daal kuy ut xam-xam jaar nga ci yooni ajjana ndax yoo ajjana mënuñ koo am ko ci lu dul liggéey bu baax du yàlla gërëm loolu mënoo koo am nga xam ko lu dul ci am xam-xam moo tax kon xam-xam lu am solo la mu ne bu boobaa yàlla ubbil na la yooni àjjana anna na malaikata la tadaw ak ne ataa li taalibil ilmi ridan lima yablugo mu ne malaayka yi bu nit di dem di uti xam-xam dañuy jël seeni mbagg tàllal ko ci suuf ngir bañ lan tànkam bi tegu ci kaw suuf kon tànkam bi mu ngi dox ci kaw mbaggi malaayka yi ak malaayka yi niñ teddee niñ fooree waaye dinañ wàccee seen bopp tàllal seen i mbagg ki wuti xam-xam di dox ci seen bo mbagg yi kon loolu kon lu am solo la mu ne ridan li ma yaddu bu ko ngir kontaan gërëm lu baax li nga xam ne mu ngi koy wuti nga xam ne bu ko amee jëfee ko rek defar àddina ak àllaaxira kon kuy luy defar àddina di defar jamono defar société defar diine soril bon soril yàq soril mooy yàlla lépp lu ñuy moytu xam-xamal la koy xamal nga man koo moytu lépp lu ñuy ut muy lu baax xam-xamal la koy xamal nga man koo xam xam la muy jëriñ man caa sawar di ko ut ngir yàlla kon loolu yëpp yaa ngi koy amee ci xam-xam moo tax mu ne kon nag xam-xam boobule foor na fooraay goo xam ne malaayka yi ñooy tàllal seeni mbagg di ngeen di ci dox ngir uti xam-xam naka noonu wax ne majtama qawmun fii baytin min buyutillahi يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخسرهم الرحمة وأفرهم الملائكة وسكرهم الله في من عنده ومن أبتع بعمل لم يسب به نصره صلى الله عليه وسلم من أي جامي يلا دون دجي مك ci néegab yàlla dajee fa leneen fa dajee تيري lan jàng téeréb yàlla bi di alquranul karim di jàng ko di ko لام di xam lam digle لام تيري ko xam bu ko defee kon ñooñu waxtu wuñ dajee ci palaas boobule nga xam ne mooy néegab yàlla te mooy jàkk waaye yonent bi moom xeetam yi yàlla daf ko dimbale defal ko suuf lépp muy jàkk ci moom ak ci xeetam la wax na ne ju'ilat liyal ardu kullaha masjidan tahuran suuf lépp def nañ ko mu nekk jàkk ci suma xeer bi jàkk joo xam ne laab la fu la waxtu julli jotee man ngaa julli moo xam sa néeg la wala sa kër la wala si jàkk la wala sa office la wala ci tool bi la wala ci garden bi wala ci kaw yoon bi la foo mën a toll rek bu waxtu jotee ndéem fa nga ne suuf sa set na amul sobe mën nga faa julli loolu nag kon jolnent bi rek moo ko am xeetam yi yeneen yi duñ mën a julli lu dul ca seen jàkk ya seen néeg yañ def muy néegi jaamukaay fa la ñuy defee ci seen jaamu ya waaye ñun ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teraanga di ko yàlla teral teral xeetam moo tax de julli su ko jotee rek bu boobaa moom man na faa daal di julli foofa moo tax mu nekkoon nag bu boobaa nag buñ fa dajee yattuuna kitaaballahi wa yatadaarasuuna baynahum di jàng téereb yàlla bi di ko jàngalante di ko xam di ko jëfee bu boobaa topp ndigal yi moytu teree mu ne bu boobaa nag nasala alayhimu sakina sakina dafay dal ci ñoom mooy xel mu dal wa xam ne bi sa xol bi mu ngi dal ci yàlla doo tiit doo ragal doo jaaxle ndax yàlla ku ja ne leneen amatul ba di la jaaxal mbaa mu di la géteel